nekkoon ci terrain bi parmi les vingt deux joueurs wala yéen ci équipe nationale dafa am ko tudd Kheucha ba Kheucha war a mën a yàq wala di um Sénégal man ma demal fu ne Sénégal àndal fu ne équipe nationale fii di supporter Sénégal di gagné ma amoon yéene rek ndeysaan doon sénégalais ni yéen gis anglais yi nañ fa bare woon ñu tuuti lool waaye sant yàlla yàlla dogal ni ñun ba ñuy dem xam nañ ni équipe bu Angleterre cinquième classement mondial FIFA ñun leer nañu ñun. leer na ñu ñu Angleterre la ñu man mais du ñu demee loolu parce que ay doomi Sénégal lañu te ay góor lañu dañuy dem ngir wuti ndam waaye léegi lañ doon wut suñu borom bi mayuñu ko yéen xasu leen jour xasu leen kott ñëw ni maa leen um man dama leen nduru kuy umaate wala man dama leen nduru kuy dellu ginnaaw wala lan mooy problème bi yéen ñenn ñi dañuy kaf te d'accord naa man kaf gi mu am problème ambianceur la mais na rafet lu ma dugal ngeen ni ma lan mooy umma sama temps bi ma bàyyi nii ak sama déplacement dérangement bi waxuma waxi xaalis ak waxi ticket metti na de gars yi xalaat leen loolu ma ñëw toog di gérer ngir bëgg ma def ay yoo xam ne di supporter ji te Angleterre nag wax dëgg yàlla seen joueurs yi man man man ni leen di gisee ci télé bi ak man joueurs yi ma gis wute nañ ay gandi nit laa la wax ay gandi nit yoo xam ni sii ba pare xool ñu doon football ak ñun ñun tey moom jour defe bu yeboo ñu nangu rek en tout cas ce qui on était venu vraiment pour encourager soutenir nos lions mais yàlla ni la ko tuddee depuis le début de la compétition ñu ngi doon support Sénégal ailleurs aujourd'hui yàlla dogal nañu ni am nañu defeet kon sant nañu yàlla bu baax a baax a baax ci lim ñu defal lu gën ci ñun la personne ne s'y attendait au début on se disait que Sénégal du du sori premier match ñëpp bàyyi woon seen loxo ñëpp doon wax ni non duñ dem équipe bi du dem et pourtant les joueurs ont cru à ce que ñoom ñu dem ba ba ba ba ba huitième de finale donc c' est pas donné à n'importe qui ay Allemagne ñibbi nañu ca match de poule yi y' a pas mal d' équipes yoo xam ne ñibbi nañu yoo xam ne gënuñu leen kon ñun nañu bàyyi lu xëpp rek ñuy kaf suñu kaf day ëpp quoi am na yii ku ngeen koy def day daanu cardiaque man man yëngalu ma man moom faa mooy ay jaañu um moom problème mais am na ñu ngeen koy def dañuy dañ dañuy dañuy dañuy dañuy dem feneen yow ku ñëw démb. man démb laa ñëw man yàggaguma fi démb ngeen bëgg ma ko yaa ñëw dafay métti ci xol mais pensez à xaaral ma def ni nit ñi pensez à ma famille <laughs> mais quand même bon respect yal na yàlla defal ndam ci leneen di ñu jëm yeneen compétition yi ah yàlla defal jàmm bépp jour du Sénégal bu ñu complet woon barki Serigne Bamba day metti rek waaye kon lañ doon ñoom préparé ci série fa lañ jëm ak ñoom mais sant yàlla quand personne n'a démérité donc joueur yëpp wax dëgg yàlla amul kenn kuñ ci naan defal lii wala defal laa la leen waroon def nañ ko et aujourd'hui lii la yàlla bëgg ñii ñaan yàlla may ñu ndam ci yeneen ak yeneen ak yeneen donc force à toi mon frère Doudou fait des vidéos yow it gis naa la yaa ngi daj dégg yaa ngi dégg dëgg waaye nag nangul waaw réew mi ñu nekk nii moom boo fi nekkee da ngay nangu rek nangul ni ma nangoo xam ni bon c'est Sénégal qui gagne ba ñoom ñii ñëpp kenn bayuñu ci kenn waxu ci lu ñaaw ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñu bëgg ndax ñun ñëpp léppi ñëpp la Sénégal moom benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar kon respect tout le monde et bonne soirée quant à moi pour ñi naan xëcca da ngay ñibbisi ah, xamaguma kañ laay ñibbisi mën a nekk demain après demain je sais pas de toute façon c'est dur et j'aimerais bien rester et vraiment continuer l'aventure avec les lions mais bon bi la ko yàlla tuddee sant yàlla en tout cas merci à tous et namu naa leen dégg kon on treize doo am suba pour ñi mu ko doon laaj maa ngi fi toog avec mes amis poteaux jusqu'à ce que je fais mon comeback incha allah Dakar jaa ngeen jëf et bonne soirée et euh, continuez à supporter vos équipes ñi ngeen bëgg support man Brésil quant à moi j'ai Brésil j'ai la France et désolé français yi mere naa leen mais man dama mës a bëgg France du coup nañ ma dóoral Angleterre fi ko Angleterre ma dóor 3-0 et Brésil incha allah yàlla na ko suñu borom may Neymar jël kabaar euh, coupe du monde ñaan naa ko suñu borom yàlla na ko def entre Brésil et ñeneen ñi tamit man ngeen ñaan leen neex c'est ça on avait osé suñu ko dem nañ ba huitième ko yàlla yamale yàlla bu baax ñëpp tamit baal naa leen ñi may tooñ naan yaa ñu um yëpp amul problème baal naa leen man moom bàyyi. problème quoi Oser mais am leen jàmm et bonne soirée ay jëf sama